lii moo jara jaay Cheikh Omar Touré kenn la ci baay sey ku fa tàbbi te bu ci baay yal na yàlla fayal ñu ko ci barke baay amiin maam maa lekk am kay newet la waay yu dooti taw ba tey ba waay newet taw ba la lii moo waral ñu def ko waay yàlla naan duudoo ko am ay da ba tey ca doom yàlla moo ñu aat ci na fii bi tey moo ñu xamal ne baay duudu mi na ni ci ñun na sax fi ñun te bañ a dee te ñun ñu dem ci moom te dox ba dee Omar ma xoon moo fi ne tey xameel ma ko borom ngëneel yàlla ko fal asal la woon bilaahi du ngeen ko jot ne raw na leen am na bi tey ñu woote baay te leerlu wuñ ci faydu baay baay duudu bi tey bokkul ca yooya gaay moom suufe na tànn ci faydu baay jamaatu baay ñëpp a lewet ku dem ci ñoom ñoo lay jëriñ perte la woon nga dem ci ñoom di jéem a wax lu génn baay lu génn baay man su ma ko waxee te kat ettale wut ne lépp baayu li ma nam mooy rafetal te jéem a jëf ci jikko baay kon ten moo di bàyyi xam leen ko waaye sadal la woon jiitu na raw mboolem xaalam bi xam nañu baay xam nañ ne baay dootel morom bilaayi baay utul morom amul morom amul utal morom dafa juum mbaa nga réere ay mayam kon allahu waahidun qahaar baay mooy borom kun fa yakun baay lu nekkul loola du jaas nañ farlu sàkkuy ngërëmam jëf min ilaahi may dagaan ndax yàlla may ma ay ngëneel maroo ji way rasulullah ba jotte fen may yu sell yaa maa mënta way nabiyullah may jéema way xalilullah barahama mooy doon ab rasul billaahi mooy gi jëra way wankat yi maa ngi leen di ñaan ngeen bokku tee way ne ma baay ngóor saa ngi mooy gi jëra way na ngeen wetaare ay tagam barhama ibnu abdallah ñes géeji maa di def géwél danaa la way mën a tasar ndax yaaju may lu na xasar déglul ma wax la ci mbiram lu daangee mu ci mayam yàllaa ko fal bu leen ko bañ asal la jiitu woon kemam ña sellal na sunnatu rasul sellal tariqa Cheikh Tidiane kum yar nga raw ba faw di waa di ñëpp yéem ci xam-xamam kuy xeeñtu sunnatu rasul jàppal ci baay moo ko fi xam soo ko deful foo mënti ngëp du la jëriñ dafay sonal yàlla waxoon nañuy mbiram lu jiitu ak dikkam ci ñun ci alquran soo ko xamul demal nga seeti nasrullah mooy saar mooy xam le mbiri baay ñas la yàlla wax sa nasrullah baay rek moo ko fi meloon bilaayi kenn gisul kemam ña oote woon fut buy xëccoo xilaafa ñoom dootuñu wax lañ oote woon nekkul ca ñoom seen fen ya tees na weeru nañ buur yàlla xëy na leen atte bu mel ni ki bëccëg bi sa juma sa mbir ya leer lii woon na képp kuy mindeef gendarmerie ooyi police ñu xëy taxaw ak seeni der naan leen du ngeen julli juma ku nekk ci fay parpari waaye xalilu laay bàyyi ne bëret di karu sa daru ko muy bëgg ah. galuy haran jëfo kurir ne fi yëpp الخلوة قيام من مربطوك بلال بشر نجال جكوك nootu ca kaw waaye ne kuréel xutba bi mel ni kii xalam man gis naa ne bis yi ku loon ko dogu julli juma la xalaatoon Abraha tak ñooñam ya def na lay dikkal man gis naa keroog Jibril la ñëw ànd ak junni malaaka teew danaan ko yaa xaliilula ñam rabbana moo ma xebal ñii jaasa ñii fett ki xeej ñii ay mbol de taxaw danaan ko yaa xaliilula ñam ñu ngi déglu sa ndigal baay sabem ga ak lewet ga tax yërmaande daw ci xolu baay mu tontu leen ne dellu leen ni kon keroog nii la jiitalam poem ñu ngay sikar di dem haras xalilulahi baay di ñaan ci rabbana mi am ngëneel naan ko yaaram bi maa ngi lay tegaa dimbali def ko ay ngëneel soppi ko xéewal yu dul jeex malaaka yëpp ne amin pour yàlla daal di koy nangul si ñeel ko lu massa si ñeel benn mi mu dul rasulullahi kii gën gi mi jéem xéewal daal di naan wesar foo gestu gis ko am lu doy ñu bokk sant rabbana te ñaan mu yokk ay mayam man gis naa kuréel gu mujjum jahim muy safara ci Sénégal te lii du jaar ku bañ ngëneel dajeeg mbugal te moo ñi bañ asiilu laa pour yaa ngi ànd ak seeni daf te pété di fexe lu bon docteur yi sax di faj ci lor ci ay taalibeem ngir ak mbañeel ñu foog ne loolu moo di ndam te fekk mooy li bon ci ñoom way perte lañ alaku nañ mbugal mu rëy ñëw nañ ci ñoom billaahi loolu maa ko gëñ ndax maa ko gis ci alquran ku wéeti laaj ma danaa la waxal li sànq gaa fi njëkkoon ndax a bañ gëneel moo tax mu koy dajeeg mbugal kii kay la yàlla njëkk a xas ci alquran mu nga jahim firawna ak ña ko gëmoon ñu koy njëkk a kalaamu laa te waayu yàlla duñu ko xeex nu ñu mujjee ñu nga jahim seetal ma bun kanaanata kon la mu ca xaliilu moo ko alak yóbbu jahim yóbbaal gaañu ko gëmoo la ma xayru xalqi laa kon na mu jag abu jahal moo ko alag yóbbu jahim yóbbaale gaañu ko gëmoon lii moo fi mas ci am ba tey te du fi jóg ba abadam yàlla du effacé lam bi doon képp ku bañ gënal dajeg mbugal waaye barhama ibnu abdallah ku mënta muur jant bëccëg bi doo mën a ay mayam asal la jiitu woon kemam déglul ma wax la ñam nirool ci gaañu baax ñi fi njëkkoon kuy sàkku mbaax ngëbal ci bàyyi soo ko bañee doo am ngërëm limaamu maam Ibrahima te Ishaq lañ ko jox jàmbaar ak Isa gan ca baay ñaf amul fi def mu baay ragal lewat ak Isa gan ca baay taaru Yusufa la baay yor ku teew ca moom doo bëgg a kuñ bëgg a tëj nga ñëw ci bàyyi ñax mu wax ci bañ bala nga dem te du la laaj ay alamaan kii yàgg naa sowet julit ku ñëw ci bàyyi laaj ko ndigal daf lay digal lu lay jëriñ tàggale la ak lu lay mbugal te naan defal li yàlla wax ku ñëw ci bàyyi laaj ko dërëm mu joor la ay junni nga dem te du la laaj loo koy defee kii yàgg naa sowet julit ñëpp moo doon lu taaxa ci jikkoom Paris la kenn gisul kemam mën a weesu baax ni kon man mi ma far fi xem gannaaw rasul a xem ci mbaax kenn boo dut fi ñëw ba jàll mbaax mbaax a ngi xem ci xotti baax baaxaalee te ku naroon a bon benn ci man mbaay doodoo ma defar ni kon ma yaa ku nib sagal dama yorul xolub ki ñaar moo tax ma woy ko waaye du mën a ko am ngëneel bañ ci ko xam baay ko sexal ba mu ne suuy koo gestuwul duñu ko fay yaa ki yore caabi ngëneel kon aket ca muy ba woo kërëm mi ndee ka toog ka battalee lili ka daw yaram ba mu fa baxoo wàcc jëfoom ci xaanu maam alaaji dem mu naan ko bàyyi man maa ngi ñëw jot naa ndigal ci suñ borom ba mu fa baxoo wàcc Dakar soppeel ya teew sa aéroport keroog la bàyyi ñas rek ci ay mbiram jébbal ko taawam ba Abdallah keroog lañ gis ko jeex ci bàyyi ñas turam wa moo di misri مو نام خدائی ڈگلے بازار باندھان am na fa ñetti bésu ay saxoo fa jàng alquran ci ñaar ci laa war a fanaa ngir mu jéggal aw ñoñam ëllëg sa ñeenteele bala dogal ba ci yow ma sax ci casawaal weeru juddoo wala dajeel ci aw rajab lii mooy li wóor ñëw de danaa ko yaa xaliilu laa ñas rabana moo ma ci sa roxo gi ci sa ndigal barhama daal di koy gërëm danaan ko defal li yàlla wax man tànn naa daje ndogal te fekk muy li ma gënal rasulullah yaa ngi ko naan amal tekkiin ci jërruhum amal ne baay mooy sama waay te sama waay kiñ ko sonala wasraafi loo nga sagu ngir kersa woo jërruhu baay waaye bu rabbanaa digal faw nga jëfee lam la digal waaye nga biir fay ne mooy waxtaan ak ay mel ni kuy kafi nelaw ma foog ne baay dafay nelaw ndekete yooroom nga dem na xaram keroog la loolu ñëpp bokku tiit yëpp a waaru ci bàyyi am nee nañ xew ci hôpital bi yéen na képp kii di jéem docteur yëpp daal di teew ñu toppatoo ko na waree jébbal ko waa dem na loon est kabira am ngërëm te tusubaar ju man ci tuuti la min ka wàcc ca Dakar te boori jël la ñëw këram mi nee si yëpp ne tirim Cheikh Ibra seexu sa too nga mel ni dof seexu Omar Touré ngalu mi nee si yëpp ne tirim alaaji as alaaji daam alaaji aadi ñas ñoom ñëpp a buur ngir bëgg a waaraate bisub keroog koo xool mu mel ni kuñ fetal waaye Sëriñ Aliou Cissé moo ko jullee ñu rob ko dem jullee fajar mbal fa baxoo jaari këram est-ce que lili kalaw yaram wajul fu ñuy jëlee ci baa jëfam nga jar na ñëpp jooy ñëpp moo ñu daan jooy ay ngëneel akum janoon nga mel ni buur ooy ñun fu ñuy jëlee ci baay baay joo xam ne buy dox ci yoon du xool ci kaw du xool ci suuf te lu mu ne man la baay ooy ñun fu ñuy jëlee ci baay baay joo xam ne buy làkki arab arab daanu leer te naan eskay bi la arab ooy ñun fu ñuy jëlee ci baay waa joo xamee buy dox ci yoon du xool ci kaw du xool ci suuf lu yëngu mu ne laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah woy ñoom woy ñoom fu ñuy jëlee ci waay baa joo xam ne buy dox ci yoon du xool ci kaw du xool ci suuf lu yëngu mu ne laa ilaaha illallah way ñu ma way ñu ma fu ñuy jëlee ci baay baay joo xam ne buy dox ci yoon xool ci kaw du ko ci suuf doxin ko jooy am nañ baay dudu li ñu daan la ilaha illallah la ilaha illallah baay dudu